modi Amadou mam job moom itam euh, réagir na juste après la dissolution de l'Assemblée nationale mu nekkoon euh, li nga xamné ne que moo le président de l'Assemblée nationale ki nga xamné ne que modi Amadou mam job mu daal aussi euh, si nga xamné ne que modi coalition ben Bokk yakar kàddu yi nga xam ne itam yëkk ko peut être su yembee ñu daal di koy dëgtal téléspectateurs en direct mu koy def exactement à travers. Euh, au euh, euh, tweet euh, actuel ex ex donc nous daal exactement ce jeudi 12 septembre 2024 le président de la République a prononcé la décision de l'Assemblée nationale c'est une prérogative du chef de l'État qui en a usé j'en prie acte et rends grâce à Dieu le Tout-Puissant de m'avoir permis, euh, durant ces deux années pleines de euh, péripéties, de remplir mes fonctions de président de l'Assemblée nationale avec honneur, engagement et dans la fidélité aux valeurs républicaines, morales et démocratiques. Je remercie le peuple sénégalais euh, dont l'Assemblée nationale est l'émanation et assure euh, la représentation à lâché ki n'a ramené que Modi Amadou Mame Diop mu daal exactement si compte li nga xam que moo di donc on a woon na Sénégalais yi nga xam ni itam doon xaar euh, après justement cette décision bi n'a xam ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko dama si réaction bu li nga xam que moo le président de l'Assemblée nationale donc leer na nag ki nga xam nekk moo Amadou Mame Diop nee na mi ngi remercier bu baax a baax a baax askanu Sénégal ñaari at la nga ko daal di teg si bopp li nga xam nekk moo euh, assemblée bi géré na ko nag doon de sax jafe-jafe yi nga xam itam des fois batay ni euh, peut-être euh, les président Macky Sall denkon donc on a que exactement donc ce jeudi 12 septembre 2024 le président de la République a prononcé la décision de l'Assemblée nationale euh, c'est une prérogative que le chef de l'État qui en a usé j'en prends acte et rend grâce à Dieu le Tout-Puissant de m'avoir permis durant ces deux années pleines de péripéties de remplir mes fonctions de président de l'Assemblée nationale avec honneur engagement et dans la la fidélité aux valeurs républicaines exactement alors euh, l'un la daal justement à la dernière minute euh, réaction bu ki comme xam ne que suite à la dissolution de l'Assemblée nationale mais tout d'abord euh, magistère ces derniers temps qui nañ ko agité quoi qu'on puisse sur si députés passé mm-hmm. aussi supporters y a nekk du Yoru. <laughs> xam nga xam nga xam man lima ma di wax sa plateau fi rek. Mm, mm. gis nga Macky Sall dafa nampatal njabotam politique bu ñom ñep jikkoom lañ yor gis nga maire yi bo démé ci ci ci commune bu ci conseil yi nek ci ci ci dans chaque département. Mm. nga dem ba ci depuis sen député yi bu ci président assemblée nationale bu ci sen ministre yi Macky Sall kep ku àndoon ak mom gëm politique am la nampatal ba yow nga yor jikkoom. te jikko bi du lenn ludul di def lu leen neex di salfañu yoon. maanaam yoon bu leen arrangé ñu xëcc jëmale ci seen côté bu leen arrangé wul seen yoon nekku ci. Hmm. kon moom ci logique boobu la nekkoon parce que boo gisee Macky Sall choisir ko c' est parce que dafa bëgg koo xamante si tey da koy jëfee comme télécommande fu mu ko jëmale mu jëm fa te lool moo fi yàgg a nekk. kon moom assemblée nationale moom yàgg na fa nekk ay député di fa nekk di def lu leen neex far ci moom di taxaw di interrompre ay nit di taxaw di xas ay nit di taxaw di saaga ay nit mosu faa rappeler règlement intérieur assemblée nationale. comme bu ñu demee ba ay ba ba ëlbateeku. ñun ñu ñëw au pouvoir mu bëgg di fàttali yoo xamante ni cité yi xam nañ ne mosu koo fàttali wala gëmu ko ñun aussi je pense que loolu du ñu jaaxal te hmm. discours bi comme ni nga ko defee tamit c'est un discours sage parce que hmm. moom xamal na boppam ne que président li mu def yoon moo ko ko may bokkul hmm. ak ñeneen ñi nga xam ne peut-être ñu ngi xalaata leneen te dissolution assemblée nationale bi ñun ñëpp xam nañ ne lu waroon mën a nekk la lu waroon a yàgg nekk la mais le président de la république en bon républicain dafa dafa dafa demander l'avis du conseil constitutionnel laaj ko lan mooy date bu baax bi pour mu dissoudre ko ñu jox ko date bu baax mu xaar ba date boobu agsi mu def ko donc deful forfaiture dafa topp yoon ni ko ko yoon santaane mm. te ñun ñëpp xam nañ ne que la bonne décision c'était mm. la dissolution de l'Assemblée nationale mm, mais Amadou Mame Diop rappelé woon na ko benn affaire que ni yaay ñu santoon liggéey une euh, ngi santoon liggéey pour nous préparer des bu Ousmane Sonko bi euh, waaye fois euh, gisuñu ki nga xam ne moo le président dem ci allant dans sens exactement. non ñoom du ñu gis Ousmane Sonko duñ ko gis dans la mesure où ñoom li wara tax ñu gis ko gisuñu ko les dispositions yi wara yi ñu wara respecter pour gis Ousmane Sonko respecter wuñ ko bu fekkente ne yow assemblée nationale bo xamné né nee la règlement intérieur bi baaxul ñëpp d'accord ci. yow nga gëm ci sa bopp teg ci sa tànkat ni doo ko respecté respecté woo loolu noonu mais ñu gis assemblée nationale boo xamante ni si tey sànn ne reflète pas la volonté populaire. reflété wul la volonté populaire qui s'est exprimée le 24 mars 2024. Hmm. nga gis assemblée nationale boo xamante ni tey au lieu que mu accompagner sa gouvernement mais day xeex sa gouvernement. ñu sommes assemblée nationale boo xamante nous si lu fa président yóbbu ñu xeex ko gis nañ fi loi portant suppression euh, conseil économique social et environnemental au conseil des collectivités territoriales Nous avons ko pour ñu ñu supprimer ko parce que dafa bokkoon ci suñu projet. ñu disons ko Sénégalais Nous disons dëkk boo dem conseil économique social et environnemental. nous mais dem au conseil des collectivités territoriales mais quand même débat euh, parce que euh, débat euh, xam nga lan la pas obligé c'est nga débat bi xam nga la c'est des institutions budget budgétivores yo xamante ci tay Macky Sall dako créer pour caser des ay nit politique ces hommes politiques ñun ñu digone Sénégal né ne bu ñu falee dañ koy génne yow bu fekkenté da ngay ñëw pour accompagner président bu amé ben volonté ñëw exprimer lako dañ ci and mais ñu joggé xam nga li gëna graw sax ñom ñu taxaw déclarer ouvertement ne que ñoom dañuy déposer motion de censure pour daaneel gouvernement bi hmm. kon ñi xam nga né dañoo ñëw pour yàqal sénégalais volonté populaire bi exprimé wu dans les urnes euh, ne may jox jox def Sénégal loo xam ne c'est historique jox ñu 54 pour cent loo au premier tour nga xam ne dans l'histoire politique du Sénégal amul benn président de la République bu mës a gagné au premier tour ñun yàlla may ñu ñu gagné ko nga xam ne peuple bi dafa ànd ak ñun peuple bi dafa adopté suñu projet léegi yow nga ñëw bëgg a galgal gouvernement boobu noonu tey maanaam yow li askan wi bëgg bëggoo

da ngeen waxoon que ni bii mooy nekk assemblée bi gën parce que là on parle justement euh, d'ailleurs euh, où on parle presque d'une cohabitation entre le pouvoir ak li que l'opposition mais malgré ça tey moo gën catastrophe concrètement non ñun même non, kii amu fa xam euh, parce que bien député cohabitation amu fa mais xam nga cohabitation amu fa parce que benn député leen rawee mais y a des choses qui se sont passées là on parle presque d'une cohabitation entre parce que entre temps gis nga li xew entre ñun ak waa taxaw hmm. gis nga li xew mais mais ma dégg ma ne la yéen part de responsabilité. yéen waa Yewwi Askan Wi non ñun non man gëw ma ne am nañ ci part de responsabilité de li xew ci assemblée parce que nos députés nous ont représentés de façon très digne bo boo ko melni ay Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen pour citer que kooku taxaway bi len waron assemblée nationale def nañ ko avec dignité avec honneur respecter nañ sen kaddu respecter nañ sen engagement. Mm. euh, représenter nañ le peuple sénégalais de façon très digne.

da ngay gis ci ci ay député Macky Sall ngay gis député bu taxaw ne man député Macky Sall la. Hmm. lu indi damay voté du ma sax xool. Hmm. ci député Macky Sall ngay gis député boo xam ne day dem toog di nelaw bu di nelaw ba voté jot mu yëkkati loxom parce que xamuñu seen responsable moo tax ma ne la dañoo war a xoolaat gis nga dañu Sénégal dañoo war a xoolaat anam bi ñuy falee député yi lu ñu war a xoolaat la parce que dafa yomb trop ñu ne ah député bi dugal nañ ko ci liste nationale fal nañ ko. dafa yomb. ah mais loolu tax ngeen tas assemblée bi. exactement parce que. Euh, jàpp ngeen seen ay nit nekkuñu moo tax ma ne la le choix jàpp ni seen ay nit nekkuñu fa. da ngeen fa néew non du loolu de. moo tax ngeen tas assemblée parce que après seen ñu jàpp mooy euh, assemblée li ñu jàpp hmm. bu fekkoon day refléter suñu suñu suñu comment dirais-je le peuple sénégalais bu compter une assemblée bii ni faire respecter la volonté populaire vous avez une assemblée nationale responsable une assemblée nationale digne de son nom nous duñu leen dissoudre li tax ñu dissoudre leen mooy une assemblée nationale qui va représenter le peuple sénégalais de façon responsable et digne L'on a moo mané la ma appel mané, choix yi ñu le choix d'un député député de n'importe qui du n'importe kii ngay jël di ko def député député dafa war a am profil député dafa war a nekk koo xamante xam na lan mooy rôle am xam na lan moo ko yóbbu assemblée nationale bu demee assemblée nationale xam na la ko fa war demu fa parce que Sonko moo ko fa yóbbu rek lu neex Sonko ci lay dox suba ba ngoon dafay dem parce que dafa xam son rôle dafay dem parce que day représenté parce que député yi ñuy jël di leen jëlee ci département yi ñuy ñëw di représenté wala ci jóge ci benn région nga ñëw di représenter région lëm wala département wala woo communes yi wër département boobu yëpp war nga mën a xam yow boo demee assemblée nationale ban taxawaay nga war a xam ba commune tel am du am jafe-jafe mais da ngay gis ay députés yoo xam ne dañuy nekk représenter tout un département boo wàcc am na commune yoo xam ne ñoom ñu leen tudd sax wala ñoom ci seen bopp prise de parole sax duñ ko am mënoo xam ban impact lañ ci am ñun boo ñëwee par exemple fi ma dëkk muy département Koumpentoum ñun ñaata yoon la ñuy am ay député mm. kan moo ñu fa mës a représenter de mm. ba léegi jafe-jafe yi am ci département Koumpentoum bi kenn mënu ko wax bari nay jafe-jafe yu fa nekk Koumpentoum am na ay dëkk yoo xam ne ba léegi amuñu ndox am na dëkk yoo xam ne ba xam ne ba tey amuñu courant yoon ya fa nekk boo boo boo fa jaaree Sëñ Fallu ñu ne la fii nit mu ngi fii nit mën na fee jaar danga naan déedéet oto waxuma la oto de nit rek war na fi mën a jaar danga naan déedéet mais loolu loolu lépp lan moo ko waral mooy ay yoo xam ne bañ leen fale seen bopp lañ fa nekkaloon mais nekkaluñ fa askan wi te loolu noonu ni mu amee ci département Koumpentoum boo jogee Koumpentoum di dem Payar yoon bi foofu sëñ Fallou bu ñu leen fii nit dafiy jaar danga nga naan déedéet nga jël yoon bi jógee Méréto di dem di dem di dem comment dirais di dem Koumpentoum mm. da nga naan déedéet waa Méréto bi may ñëw rek ñu ngi ma koy wax mm. ñoom seen électricité commune lu toll ni commune bañ ko defee commune ba léegi amuñu électricité indi nañ leen ay poteau indi leen lépp mais ba léegi courant bi ba léegi jàllagul mais loolu c'est des cris de cœur yoo xam ne ñun ñu ngi koy dund dans le département de Koumpentoum te département yéen yëpp noonu lañu koy dund te dara waralu ko loolu nguur gi fi nekkoon nga xam ne képp ku ñu faloon sa bopp nga fay nekkal mais doo fa nekkal sa askan mais loolu lañ bëgg a changer nag indi fa ay député yoo xam ne dañuy représenter leur peuple parce que député war ngay ñëw nga s'enquérir de la situation nga xam telle commune tel département ban jafe am nga àgg ko assemblée nationale muy représenter nga xam ban discours nga war a tenir loi yi ñuy ban loi nga a voté ak boo ko voté ban jeexintal lay am ci askan bi mais ay député yo xamné yow da ngay teud nelaw voté bu jotee nga yëkkati buñ waxé nga né Macky Sall la fa nekkal wala Ousmane Sonko la fa nekkal man gëwuma lool man lima gëm moy on doit revoir les profils de nos députés pour ñu mën am une assemblée nationale digne de son nom alors mi ngi noonu exactement une assemblée nationale digne de ce nom loolu la Sénégal daal di xaare ni euh, si nga xam ne que moo di législature bu yes bi donc mi ngi noonu ki nga xam ne que moo di Amadou mam Diop moom itam euh, prononcé wu na si li nga xam ne que moo di la dissolution de l' assemblée nationale nee na mi ngi sant gërëm bu baax a baax a baax euh, Sénégalais waaye itam ki nga xam ne que moo di Macky Sall si tàmm gi nga xam ni itam tàmm na ko pour daal di teg ko si bopp li nga xam ne que moo di pencub na réew ma exactement alors ginnaaw loolu dañuy daal di ñëw itam si. si leneen euh, El Hadj mais ñu ba tey si li nga xam ne que moo di euh, assemblée nationale ak tolluwaay wi.